Avant de commencer, on vous rappelle que le Sénégal. Le Sénégal est champion d'Afrique Avec. L'étoile sur le maillot 21e compagnie, deuxième session, gardez-vous, demi tour droite, classe 2015. Taxaw. Taxaw. Taxawaay. Am naa ndox yàqul koor. Eh waay sàmm. Taxaw. Saa nag bu naan ndox. <laughs> Koor gi tey dafa tar. dafa gën a tar. tàngoor bi nag moom. kenn mosut gis lu mel nii. te fan sax. fukki fan ak juróom ngi nii ci tey. astaghfirullah. daa juum daa juum. <laughs> yow Idy ma yaakaar nga mel ne non loolu amul. pour man doo dem si 4 avril. mais bu ma ñëwul ñu ne ah Idy moom gis ngeen ko nangam et cetera vraiment ma nga di est ce que fa di damay pour Afrique. ban Afrique point d'interrogation. <laughs> Macky Sall mi moy kan? président au Sénégal. deuxième tour. Wow. bi mu dem ak Ablaye Wade. Wow. bi mu dem ak Ablaye Wade deuxième tour dafa tiim. waaw xam amul sécurité. Wow. Mom mo ñaan Ablaye Wade. mu def lan ne ko dama bëgg nga jox ma nganaay nga jox ma karangé

lu tax mu nappaate kon ndax mom ci bopam ñemewul Macky Sonko nee na amoo fit mais lolu fu ko ko teg kat la bo xam day laqatu ci gannaaw ay nit man dama sax xif ju fal no dal ma dem ndogu ci eh, ilaha illallah sallallahu alayhi wasallam Allahumma rabbi sihi nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs merci merci ah merci Oubal ferme-moi eh. on a fait son fermement c'est tous merci et à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner